ñu rationaliser waale les partis ba pare ñi nekk ci dans la administration di Sénégal te toog bu ñu bëggee am post bu yéeg dañuy financer chef de parti ak chef d' entreprise privé yi nga xam ne ñooy financer aussi les chefs de parti bu ñu ñëwee jox leen monopole marché yi loolooy tax du fi gaaw a jóge. jërëjëf monsieur le maire. waaw ah, jërëjëf xam nga li ñuy wax yëpp. Euh, mais est ce que mënuñu woon a boole. boole ah, départ ci moom ah, boole ñoom parti yëpp ñu. ñu ñu ñu ñu parti benn bokk yaakaar yëpp mu doon xalaat la gis-gis mais gis-gis gis nañ eh, mais gis-gis yi yenn yenn saa yi mer ngeen bu parce que y' a beaucoup de a de non ay baana baana politiciens que amul ay garmi yoo xamante ni. ñu ngi toog di sàmm seen ngor di am xalaat bu wuuteeg keneen loolu aussi. parce que sinon day nekk mais tous les anciens premiers des candidats. ma ne sinon day nekk day nekk day dafay am ay dérives <laughs> liberticides. tous les anciens premiers ministres man d' accord naa. ay candidats la d' naa si régulation. maanaam régulation dafa war a am solo. Ah. dans tous les secteurs syndicats yaa ngi nii ñoom defoon nañu ay kii wate nañu ñu xam nañu interlocuteurs yi c'est-à-dire régulation tey yat bi ci ku mu dal na ko nangu. c'est-à-dire aujourd'hui nañu réguler règle bi tanque que Sénégal mi ngi nekk pour syndicats yi wala pour parti yi wala pour homme d'affaires yi wala pour règle bi du juste nañ ko appliquer à tous les segments et à toutes les niches man d'accord naa ñu réguler. le champ politique régulation nag financement benn aspect ci ak assainissement parce que régulation bi tey mënoo ko wax te assainiroo parce que dañ def diagnostic ñëpp am consensus ni am na lu nga xam ça ne va pas am na loo nga xam leerul boo demee dans beaucoup de grandes démocraties un don dañ koy wax mais dafay doon lu leer mais du ma ñëw guddi seet si la sa kër indil la ab valise tuddee ko don donc c'est-à-dire il faut que ñun aussi ñu bañ a roy dàq cest à mais ñu teg lépp façon boo xamante ni bu ëllëgee nit ñi dinañ mën lisibilité citoyens yi bu ñu buggee def du contrôle citoyen ñu may leen ay moyens ñu exercer ko parce que foofu la démocratie toll. Mhm. maintenant nag il faut que yenn parti mais ñuy ñuy gëmm comme comme comme taalu ndéef bi nga doon wax. waay léeg-léeg bu ñu kiiwee amoo 5 pour cent. pour cent la manqué. mais benn 5 bari na c'est-à-dire ngay gëmm toog su ko defee financement bi nag parti dafa am lu tax origine bi du pour nga financer sa activité politique kenn forcé wul kenn fekk këram ni ko kaay jiitañu kaay créer parti parti dafa am une mission d'éducation une mission d'information et de santé une mission de service public mi ngi mel ni école privée yi pourquoi ñu leen jox suñu subvention parce que dañu yaakaar ni si wàllu éducation dañu am benn mission de service public donc loolu nag loolu sorewul ñi def benchmarking yëpp xam nañ ni dañ lay jox siège bu fekkee yaa ngi assemblée am nga une représentativité nationale ñu jox la ab siège parce que il faut aussi garantir la diversité bu ñu la joxee siège jox la benn secrétaire jox la benn oto quatre chevaux soo bëggee say huit huit ak say yooyu nag yow yaay xam na ngay tojee sa bopp janax convaincre nit ñi ba nga teg ko nag ci lu ci lu lew te dagan ba bu la nit di def ëllëg ay appel de fonds wala ay dons mu mën a doon lu leer ñu tracé ko mais wanuñu wax financement de partis politiques réew mu ñu nekk ay pays envoie de développement nit ñi war a tabax ay école tabax ay salle de classe koo wax mu nga naan lu baree metti lii manqué na lii manqué na ñu jël xaalis bare di ko jox ay 300 partis politiques wala ay. c'est trop mais loolu moom loolu acteur politique bu ci xaar pour financer activité politique. bee boo nga bàyyi politique bàyyi ñi nga. xamante ni yaakaar nañu pare nañu pour def sacrifice yi ñu continuer si. monsieur le maire Thierry am na ci ñoo xam ne bi nu nekkee. bi nu fexe ba créer parti ba dugg ci nguur gi sax la ñu commencé liggéey ñu ci bëri. ah waaw mais mais béykat ñu ci bëri duñ jeex. béykat xam xam gis nañ ñu fi def seen financement parti ay sénégalais ñëw di dugal seen xaalis di financer parti bi bàyyiwuñ leen mais ku bàyyiwul sénégalais financer parti bu mu bu mu bëgg est-ce kooku dina jël ci budget di ko jox parti boo xamante ni danaan. mais moom moomul budget la. Euh, mais moom mais c'est-à-dire man man je ne vois pas peut-être benn Sénégal boo xamante ni peut-être ñort bu rafet lañ ci am mais euh, conte tenu des événements qui se sont passés est-ce que ñi nga xamante ni ay sénégalais lañ ñu yëkkati seen xaalis di dem di financer benn partie ñu ne dafa am ñeneen ñoo xamante ni dañu ñëw sax génnee communiqué euh, Antoine Diome génnee communiqué di wax ni waruñu financer parti et tout ça dañ koy teew dànkaafu leen en tout cas. est-ce que loolu état moom dina encourager le financement des partis politiques parce que loolu méngoowul ak réglementation bi ñu am nii. diaspora bi non non. si si non attends définiruñu ak réglementation bi nga xamee ne. gis nga euh, kii yore police su parti politique yi c'est le ministère.